may doonati na Jullit TV doonati na yow lay bégal yow may doonati na Jullit TV doonati na yow lay wayal may doonati na Jullit TV doonati na yow lay bégal ma dikkee ma Jullit TV ay yéen yéen lay bégal doonati na waa Jullit TV doonati na yow lay wayal lay wayal ay yow lay bégal yow lay wayal ci sërata يا أيوب مصطفى الله يمين على نبي وعليك أجمعين سلام ربنا دائما عام بسلام سجل خيتك وعامنا ميدو جوابي Senti appeti Manafti senti ci ديا يا مصطفى الله الله دلنا على النبي وعلم أجمعين سلام ربنا طيب النعام بسعيد الله خيت خائب بنك لكن وخل فيه انتصار طاعتك تنخر إن أم وهدي مددين على نبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائما عام بسجن خيجك وخير ذلك حالك نسيت خوفي كما جاء نفرقا لعصيه مددين على نبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائما عاقبنا سجن خيتك وفرت دعوا في الأمم حبيبي لا تذر دائما في النبح والجهاد دين على نبي وعلي ونعيد سلام ربنا دائما زينا خيتك وفي قصي لقاء المصطفى وعبرة وأمي حبيب باتفاقي فضلنا على نبي وعلي أجمعين سلام رجنا دايما عام في سجن خيتك وبرة البنت عوف واللقاء على كعب وحرث ولا على يعني حقه وننينا على نبي وعلي أجمعين سلاما ربنا دائما عاقب سجن خيت فوتراه في كل تقديراتي نسبا صريحة في قريشي من خلاصي حضنين على نبي وأليم أجمعين سلاما ربنا دائما آمين سجن خيط فوز لا يدر الذي قد خالف مادحا وجزاه مولاه خير خير منصرين وننا على نبي وعليه أجمعين صلاة دائما عام سيدنا خيت قوم فالعرب خير وناس الصدق خير رب خريشي راسي ووفي ما سيد الحاج مالنا على نبي وعليه أجمعين سلاما ربنا دائما نعم سجن لخيت ومرة قلت ألف أمة فأميمة خلافة أمة علينا على نبي وعليه نبينا سلاما نبينا دائما عام نعم أجل خيتك وطابت الأمة أخو الأمة نابت لنا أعوذ بالله غير سيدي ردنا على نبي وعلي أجمعين سلاما رفيتا طيبا نعم سيدي الله خيتك وقطعم مبين مبين رتانا مالك رتانا مالك رتانا مالك

كانتا يقين ينترفضا غير كانتا يقين ينترفضا غير كانتا يقين ينترفضا غير كانتا

yëkkatale seen loxo yi ca kaw maa. ku bëgg Seydina Muhammad. yëkkatale seen loxo yi ñu way ma maale. ku bëgg Seydina Muhammad. yëkkatale seen loxo yi ca kaw maa. ku bëgg yëkkati leen seeni loxo yi ca kaw ma ana soppe yi rasulullah rasulullah ya jarata talma ana soppe yi rasulullah rasulullah ya jarata talma ana soppe yi rasulullah rasulullah ya jarata talma ana soppe yi rasulullah rasulullah jarata talma رسول الله يا جرة الموالي أنا سمي رسول الله رسول الله جرة الموالي أنا لبك سنبا بكر يبتل سن لخويك كوما أنا لبك سنبا بكر يبتل سن لخويك كوما أنا سمي رسول الله رسول الله جرة الموالي rasulullah jaradandal Muhammad bëgg sëñ Mbàkke bëgg rasulullah jaradandal Muhammad bëgg sëñ Mbàkke yëkkatal seen loxo yi ñëw bëgg sëñ Mbàkke yëkkatal seen loxo yi ñëw yëkkati na seen loxo yi jàkka umma kër jàkka si yéen laay waayam yëkkati na seen loxo yi jàkka umma kër jàkka si yéen laay bégal yëkkati na seen loxo yi jàkka umma ana zambi rasulullah rasulullah ya jarata talma ana zambi rasulullah rasulullah jarata talma بك رسول الله أنا وعد من يلا رسول الله جرد أنا سبي سن بابكر أبا بكر مدومي مدوما وبك سيرين بابكر يكت نسن لخو يجاكو حمد لخير البرية يا بكر يا جرد دينك خدر بالجميع والأنبياء خير نور يا جرد وارسلي في رضاك وارسلي فيا خير نور يا جرد جري وزا من الانوار زايا خير الورى يا جرة ربي رسولك النبي سندي خير الورى يا جرة صلي علي شافي المردي خير الورى يا جرة هنا المسير وهنا مسير خير الورى يا جرة وما غير من إيرو إيرو ياسين الله حسين الله حسين الله والموت في المنجن والنجف الساخر أجب لنا بجايبا بك الله عين النايم وصراط لنا كذب مراد حيث قرض على الوقف في سيدي سادتي سمي وسمي واسي علي واسي سمعان ما إن وصلي يا رب الفجر فنجي مولاي شر الخلق يلك من يرتب الخروف صلاة فاتح الدعاء خير خير قلت من بعونك الكريم وطم خصنا وبدل خصنا وبدل صلي على سيد الزلمه ساجد صل على ذكر والمناك وعليه وصبي وصبي الراكعين ساجدين ساجدين yëkkati la seen loxo yi ca kaw maam ku bëgg Seydina Muhammad ku na mi jaaralu njukkal taxaw ñu ana soppay Rasulullah Rasulullah jërë tontal ma ana soppay Rasulullah Rasulullah jërë tontal ma faali bay Rasulullah Rasulullah jërë tontal ma رسول الله رسول الله درجة المفاتيح أنا واكري ينتبي رسول الله أنا واكري ينتبي يا درجة المفاتيح ومدوم من بكنا مدونا مدونا مدوم من بكنا مدونا لحظة كوكب Omando tey laale bégé laale bégé Omando man wey naa la Omando man wey naa la Omando man wey naa la loxo ca kaw Omando tey laale waay tey laale waay wara yow laay bégé Omando xayrul wara tey laa lay waral ma doo tey bëgg naa ku bëgg yonent bi defee nii sa loxo. ma doo tey bëgg naa la ku bëgg yonent bi defee nii sa loxo. ma doo tey bëgg naa la ku bëgg yonent bi defee nii sa loxo. ma doo tey bëgg naa la ku bëgg Serigne Babacar sa loxo jàkka. ma doo tey bëgg bu bëgg Sëriñ Babacar sa loxo ca kaw bu bëgg Sëriñ Babacar sa loxo ca kaw ayul wara way naa la ayul wara ayul wara yëkkati leen loxo ca kaw wane sa jofir wax yëkkati loxo ca kaw ay bëgg nga wane sa jofir yëkkati loxo ca kaw ay bëgg nga wane sa jofir yëkkati loxo ca kaw ay bëgg nga wane sa jofir yëkkati loxo ca kaw ay bëgg nga wane sa jofir waxal doon ma kaw ay bëgg génn na ci biir Bakir Diagne sëy yee Bakir Diagne sëy Bakir Diagne sëy yee Bakir Diagne sëy جزل وخر جول ما أي بدور سجفر وخر جول ما أي بدور أنا سب ياسين جويس أي بدور سيري مارا يو لا يو أي بدور سب ياسين دفدر يكسر لخرج simaara lay wayal jol ma kaw ana soppe yaasin jumi seen loxo ya dugal ki yana ji defini sama xal sallim ala sidi xusin shafaatu zawil kabairi kay yan jomina ومديا نرنا خيرك وكك سيدي معك ترسى لخجك وكك وعيس جفر وخجول معك وكك ينجي من الفيل سمخ وكك yonent bi defal ni sama xol ku bëgg yonent bi defal ni sama xol bëgg wane sa cofeel waxal la ma laa ko سيدنا يبقى نبيك وحدودا من السلطة بجعلنا سلطة بجعلنا وبقيت من الفن صدقة وبقيت من الفن صدقة وقال لا إنني لا شك حافظه وربه أرضه كافيه في الإبن جمعك بكي ينن الله خيدة أيجول بكي سيري بابا كريسا الله خيدة أيجول بكي ونسجف يلوخ سجول أخيدة kër jaago sëy kër jaago yasaay waay yasaay waay kër jaago sëy yasaay waay yasaay waay waañu mi reye waañu mi yasaay waay soppe yaa si joom soppe yaa soppe mara soppe mara

ay joor bëgg wane sa cofeel waxal màggal ay joor bëgg yonent bi defal di sama xol ay joor xadiijatul naqmaa bil jazmi xaailati xaailata xayra xala muxtaar bëgg yoneen sala ajakëw al njool bamba yoneen ci bi defal ni sa loxo al njool bëgg yoneen defal ni sa loxo yi takaw al njool bu tawan ni sa jofeel wax sa jofeel waka al njool bu tawan ni sa jofeel wax sa jofeel waka bi jool maan kaa jool gi yónneen sanga ya kaa fuufee ay jool wan